avant d'accueillir la star sur le plateau nous rejoindre mais la musique suspense mon cher ami c'est le moment mais Sidi xol ba seet na guy moom lay topp moom nee rek la ciy topp yaa ma ko wax de <laughs> la musique suspense s'il te plaît avant de l'accueillir sur ce plateau de 11-13 vous l'attendez tous je vous l'avais promis on l'a fait alors on aura l'occasion de parler de discuter avec elle tout à l'heure mais en attendant mon cher ami mets la musique suspense s'il te plaît Merci beaucoup mon très cher ami l'international Miss Tigré. On est mardi 19 de décembre, vous aurez les ténors, les artistes qui font le actuellement. Elle fait partie aujourd'hui des des rares artistes qui Vraiment, vraiment salué. Monsieur, dame, tenez de 11-13. Moi, je l'aime, parce que c'est quelqu'un de très spécial avec

La star est là, bien sûr, dans On vous l'avait promis. Et la voici. Messieurs, dames, tenez-vous prêts pour accueillir la star internationale. Elle a fait les plus grandes salles au Sénégal et un peu partout dans le monde. Quel plaisir de l'accueillir. Comment vas-tu, Ciss? star amul jot. dégg nga <laughs> xam ni star xam naa ne doo yeewu heure bi ndeysaan kontaan naa kontaan naa quel plaisir je l'ai dit tantôt Oumou maa ngi lay nuyu sonal naa ko ndeysaan Oumou ndeysaan nee ko man ak yéen biir si démb ci guddi man ak man ak biir mu ñal ma ngeen yeew mu dinañ yeew <laughs> <laughs> alors ça fait plaisir de l'accueillir euh, chez parce que ku ne xam na ni Mia euh, tey euh, euh, lu ne def na ko ci Sénégal ba fu mu dëkk dugg rek ci këram la kon ñu ngi koy kontaane bu baax a baax dalal ko sur ce plateau bi nga xamante ni moom moo di 11-13 alors Sidi yow war nga xoolaat sa bop bu baax a baax yaa may gis foofu <laughs> ma la kontaan ci yow. maa ngi lay fay Kheucha di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa Sénégal ñëpp di leen wax ni miyaa ngi nii. suñu miyaa ngi <laughs> seen miyaa ngi wallaay Azim ñu ngi kontaan ci yow bu baax a <laughs> baax a baax soppe yeeg am di jàmbe yi sànq ba léegi ñu ngi woote di la xaar sénégalais yi gis nañ ni la def ni def euh, ni ñu la def ci seen biir xol. nga nga nga wane ko itam. ndax quoi qu'on puisse dire c'est l'artiste en 2023 ba xam nga ni euh, bu ñu dee wax l'homme de waaye femme de l'année <laughs> yow lañ ko war a jox. Ah, seen gis-gis la rek les preuves sont là <laughs> des les nombres de vues sont là sur YouTube. ah donc, bon euh, ça fait plaisir en yi nangu nañ ah comme nangu nañ rek. maa <laughs> <laughs> ngi nangu nañ alors ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax a baax Mia bienvenue encore dans 11-13. xale yi la fi yàgg réclamé foog nga indil ñu Mia Guissé moom la ñu bëgg dans 11-13. Mhm. man leen je le ferai allah. Mhm, mhm. mais euh, ci loolu ñu ngi woon di gëstu ci yow. bokk na ci euh, Tambacounda bi nga bàyyeekoo. dëgg léegi léegi waa Tamba ñu ngi woote. Euh, gis nañu témoignage yi ñu def ci yow. c'est vraiment quelque chose d'exception. j'ai eu une maman ce matin maman Deo mu ni moom Mia ndeysaan bi mu gënee nekk xale da daan way c'est vrai yow bi nga gënee nekk xale. oui c'est vrai. <laughs> dégg naa nga tuuti woon boo daan dem dañ lay xeeb ci kaw seeni waa waaw dëgg la bu ma nekkee la maternelle laa way en fait. waaw. da nga teel a bëgg musique. dama teel a bëgg musique <laughs> di diriger ay chorale chorale école et tout donc euh, c'est dans le sang en fait. <laughs> star booy way en fait keroog gi ma lay xool. Mhm. ngay way. mais euh, je sens que kii li muy def da ko maîtriser cest à dafa mel ne luy jóge ci moom. ta façon de chanter les manières les gestes. Uh -huh. man ça m'a impressionné. ah waaw oh, loolu jàng la quoi. jàngoo ko de. <laughs> wala yow. jàng ma ko c'est venu c'est c'est comme ça donc euh, artiste booy nekk sur scène dafa am looy àndal dafa am loo war apporter da ngay joxe public bi daf ko war a moo tax tout le temps ñuy joxe sensation bu mel noonu pour ñu ñuy seetaan mën ko yëg bu baax a baax. ok léegi yow Tamba bi nga fa jógee fa nga jàngee fa nga bàyyeekoo fa nga defee sa lépp. Ah. aujourd'hui euh, euh, bi fa demaatee di jouer naka nga sentir sa bopp parce que di nga nekk ndaw man je l'ai vécu. Mhm. nekk xale bëgg di dem ci micro ñu téye la. Mhm. nga war a yéegaat ci ay scène war a yéegaat ci ay salle foofa à Tamba comment tu t'es senti. un énorme plaisir laa am parce que euh, fi ma dem remplir fa foofu laa daan jouer basket ma ñëw waa Tamba ñëpp génn xale mag ndaw da gis ay mag. ñëw toog ba ay une heure deux heures du matin et plaisir bu mag la woon ñëw gis samay mbokk samay ay xarit sama ay professeur sama ay euh, promotionnaire ñoom ñëpp ñëw vraiment plaisir bu la woon bu mag a mag a mag ñëw gis ñu accueillir ma noonu contentement bu rëy laa si amoon alors plaisir la ñun aussi pour ñun parce que euh, jóge ci dëkk mhm. imposer sa bopp c'est c'est très rare nga gis ku ko def Euh, donc ñun nga xamante ne dañoo paas ñëw c'est très difficile pour nu de vraiment euh, euh, ñu ñu dëggal suñu bopp te def nga ko aujourd'hui gis nañu ni aussi yaa ngi def les plus grandes salles au Sénégal gis nañu yaa ngi def ay tournées sénégalais yi foo dem gis nañ ñu ni mel ak yow secret boobu lan la ci Mia aujourd'hui lan moo nekk ci ginnaaw Mia ba liggéey ah. <laughs> liggéey kese <laughs> amul leneen secret bi liggéey la di innover di indi ay affaires yu bees ah donc loolu kese mooy secret bi amul leneen. liggéey bi dem na dem na ba ba ba ba jéggi dayo parce que jéggi na frontière on te voit euh, aussi aussi euh, ci les plateaux à l'étranger yi nga xamante ni mm. euh, j'ai vu les commentaires et que ça m'a vraiment plu le fait de voir que ni tey xale yi xam nañu ni que kay ba nga leen toogalee gis nañu fa artiste parce que question yi ñu la posé les réponses vraiment gis nañ ni am nga niveau mm-hmm. da nga ah waaw. xëy euh. euh. <laughs> de formation. ah ouais j'ai fait des ça. études de droit. mais c'est normal alors c'est <laughs> normal alors. Euh, parce que je vis à travers les commentaires les gens disaient Mia macha allah. Ouais. zéro faute. Mm. communique bien et puis question yi ñu koy laaj da koy tontu à sa manière et puis nit yi bëggee woon ko noonu. donc looloo tax Mia. waaw peut loolu la donc pour ñee yeneen xale yi nga xamante ne ñu ngi si yoon bi. Ah. bu ñu bàyyi jàng bi. Euh, parce que jàng bi daf leen di euh, dimbale ci seen ay projet propre projet si seen euh, seen déroulement carrière ni ñu ko war a tracé nan ak nan la ñu war a def donc nañuy continuer étudier bu ñu ko bàyyi. C'est important, c'est important. Grégoire nous a préparé tas de vidéos, peut-être que ça sera des vidéos rétro, je me je sais pas pour le moment parce que lui il fait que des surprises. Ah. Alors Gré, si on peut avoir à l'instant même les images yi nga xamante ne yow itam indil nga Elles se font belles comme tout. Elles ont les adonali. Les bébés. xanaa li ngeen def baaxul de. Qu'est-ce que ça te rappelle ça. <laughs> ah oui lii période journal rappel la may fàttali. ndeysaan. Euh, di euh, di rendre hommage sama mentor. ndeysaan gën man xumaan franchement quelqu'un euh, que je respecte beaucoup qui m'a beaucoup soutenu qui m'a beaucoup appris et tout donc ma koy rendre hommage ndax. moom moo ma permettre tey ma ma ma affiché wu nii journal rap yi et puis ñuy commencé di mu bëgg. e et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui booy gisaat vidéo image yi nii. ça fait plaisir. Ouais. ça fait plaisir dire que euh, euh, tepp tepp moo gën yureet nank nank rek ba ba yegg si fi nga bëgg a yegg si donc euh, ça fait plaisir euh, ni ma commencé ak fi ma yegg si tey. elle est venue avec son style elle est venue différemment. moi j'adore son style parce que je me je me vois là-dedans. wax naa ko dinaa ko waxaat ni ko man ci say sañse man daf may rey quoi <laughs> boo defee sañse génn man damay jooy. <laughs> et euh, ci loolu am na ay nit yu ciy critiquer chaque fois euh, les tenues de Mia qu'est-ce que sa fait aujourd'hui aussi booy gis au Sénégal nga def sa sañse ba génn gars yi ni ah li mu sol est-ce que waru woon solee est-ce que du lii est-ce que du laa que ça fait aujourd'hui rien ça me fait rien parce que euh, je suis artiste. su may nekk sur scène c'est Mia qui est sur scène donc peut les gens ne comprennent pas que c'est Mia l'artiste qui est sur scène et euh, mis à part Mia Mia a une autre sata a une autre vie elle est une fille normale elle met des choses normales mais dama leen koy nangul parce que dañoo nekk si dëkk boo xamante ne dañoo am ay suñu culture am suñu réalité et euh, damay déglu aussi nit ñi suñu waxee seen ay remarques naag si bàyyi xel euh, tout en sachant aussi que man am naa ay propre conviction am na yu ma gëm am na lu may def naa si bàyyi xel mais aussi duñ ma tënk trop trop artiste la maa ngi ndaw laa di doxal sama yoon may ñaan ñu ñaanal ma su ma dérapé nañ ma ko wax mais ak modération d'accord Yeah. Une très belle réponse, hein? Alors, on va parler aussi euh, de ce titre qui vient de sortir, Lonkotina. Euh, quand on a vu l'image, bi nga xamante ni posté woon nga ko sur Instagram, moi je me suis dit ah, kon yaa noonu la demee <laughs> ñëpp sur les commentaires ok dafa lonkooti cela veut dire que moom day marié waat et après mm -hmm. automatiquement on a vu que c'était un clip mm -hmm. et là ça a cartonné les ouais. gens ont adoré cette chanson ouais. euh, pourquoi nga defal ñu suspense boobu lonkooti naa nga <laughs> ah, wal je suis entourée des gens <laughs> des gens stratégiques yoo xamante ne euh, sama sama sama côté euh, ñi nga xamante ñoo sama communication mm-hmm. dafa am ay stratégie yu ñuy teg donc loolu la ñuy respecté rek et puis voilà ngeen doxal ko quoi ñu doxal ko ndax demee noonu <laughs> alors succès bi clip bi am mm. parce que gis nañu ni léegi loolaal mu tàkk macha allah <laughs> loolu yàllaa koy def yàlla na yokku amiin ñi ngi la koy ñaanal te macha allah ñi ngi lay wax catu ñi ngi lay bañ a catu suñu cat ak suñu catu morom euh, après ce titre quand même est-ce qu'on peut avoir l'album de Mia parce que nag en carrière solo gis nañu ni wax dëgg yàlla loo def mu baax est-ce que mën nañu xaar album en 2024 le 4 avril 2024 Mia éclosion incha allah ouais. <laughs> yow laa ko njëkk a wax exclusivité bi. donc euh, waaw nañu ko xaar. Ah, Grégoire Mia Mia nga ne lan. le 4 incha allah incha allah album Mia éclosion indépendance day génn. mais <laughs> c'est vrai qu'après il y aura des tournées il aura des programmes tout à fait mais avant ça ci décembre bi. waaw dinaa leen may beneen affaire. non non non non mais non non non no bu rey no yi quoi non non non fi nii loo fi teg rek da ngay sonal may rek xale yi dañ maa bëgg waaye may leen kontaan loo leen ci jox leen seen cadeau de Noël kon dafay am cadeau de Noël maa la wax lii mënu maa xam date bi tamit du du ma xam doo ma joxaat exclusivité bi dañuy saa rek gis bomb waaw dañuy jékki-jékki rek gis bomb espérons que xale yi yéen loolu dina leen neex yéen toog leen rek ñu xaar ko incha allah en tout cas mi ngoog nee na dina leen jox bomb aussi sa vrai que ni euh, on avait voulu vraiment commencer à temps mais ak embouteillage bi ci dëkk bi les tomber mhm. euh, quand même on a pu faire beaucoup de choses euh, waxtaan nañ ci moom de ses débuts aujourd'hui fi mu toll ba ci musique am alors aujourd'hui kon projet yi bokk na ci album en 2024 lan la ñu mën a xaarandi aussi ci Mia ci ay programme am yi mu dëkkmal fii ak décembre yan décembre ñu ngi euh, jouer euh, maison de la mutualité de Paris incha allah. Paris ñu wax waa France yëpp ñu ñëw waa Paris yëpp ñu ñëw. Mm. Île de France sama mbokk Haalpulaar yi ñoom ñëpp nañ ñëw dinañ yëngal dinañ rëgëj ah dana wàcc daal euh, waaw. qu'est-ce que carrière solo nu muy def neex sa carrière ah neex. <laughs> là tu te sens free quoi. neex daal la def. yaa ngi cool. <laughs> waaw maa ngi cool di enjoy. yàlla jàmm yàgg. amiin en tout cas kontaan nañ ci moom. Euh, duñ ko fi tenir Grégoire euh, xam naa ni temps bi xoj nañu lool. et euh, li ñu bëggoon am nañu ko c' est vrai que ni sénégalais yi moom lañ doon xaar que kontaan nañu am nañu exclusivité rek donc am nañu lépp. jeex na am nañu lépp lépp ñu bëggoon rek am nañ ko. ñu bàyyi la rek nga jox dig daje xale yi ak soppe yeeg am di jàmm yi. Euh, te xam ni euh, incha allahu rabi programme 2024 yi moom nous allons signer un contrat umu fu ngeen dem ci kàttanu yàlla maa koy présenté. incha allah waaw waaw loolu wax na ci ba pare. <laughs> la yow aussi. nga tàggoog yi jox leen rendez-vous. donc Recha je te remercie et je félicite aussi si liggéey bu rafet bi ngay def. merci ah di euh, di la encourager bu baax di remercier sénégalais bu baax ci seen support ci seen jàppale ci conseils yi. maa ngi dégg lépp maa ngi gis lépp maa ngi ciy bàyyi xel aussi di ñaan waa Sénégal ñu ñaanal ma ah xale laa nekk si yoon dañ ma ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndax dama bëgg a porter drapeau Sénégal partout dans le monde yow ñëpp la bëgg te ci yoon si di bëgg kii yow yaay artiste am. ndeysaan démb la message jabar ji ni ko lu ko wax nag na nga ko nangu te xam ni kii mooy sama artiste. waaw wax dëgg gi bëgg nga. <laughs> alors merci beaucoup l'international maa ngi leen di gërëm l'équipe technique euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax merci à vous amis chers téléspectateurs Grégoire je te remercie quand même euh, di nuyu euh, téléspectateurs yi toogoon doon seetaan yëpp umu maa ngi jéggalu di baaluwaat Mia di la baalu c'est la famille ñun maa leen mën a yee heure yi kontaan naa en tout cas bu ngeen di xaar 11-13. Merci et d'ici là, passez un excellent ceebu jën, un excellent poulet rôti, ça fera du bien. Ciao, à demain.